Je me nomme Amadou président de l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal, AGELS. Oui, bon, l'AGELS c'est une structure qui parle d'entrepreneuriat, de leadership et de citoyenneté. On a fait un constat au Sénégal, c'est-à-dire que les entreprises n'arrivent plus à recruter et que même si on vous recrute, vous êtes des à long terme. Sans, du jour au lendemain, on peut vous licencier. Et on a, fait, jugé nécessaire de mettre en place cette structure pour prôner l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de chercher des emplois, être des créateurs ou bien des initiateurs de projets. Maintenant, AGELS est là pour aider les jeunes à faire leur business plan, études de marché, trouver les bons financements pour au moins avoir leur propre entreprise ou leur propre boîte. On prône aussi la citoyenneté à travers le patriotisme et l'intégrité, mais aussi le leadership. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes là au CICES pour prôner quoi Le leadership féminin, vu qu'on est au lendemain de la journée internationale de la femme. Voilà, en ce moment, hier, on a été à la prison qui se trouve au camp la prison de liberté, c'est-à-dire la prison des femmes. On a été là avec les prisonnières, on a organisé une remise de été une occasion de leur montrer que vous faites nous, AGELF, on va prendre la responsabilité de préparer leur réintégration sociale. C'est-à-dire, là-bas, à la prison, il y a des couturières, il y a des, des, des stylistes, entre autres. Maintenant, nous, après leur libération. On va essayer de les aider à mettre en place leur propre projet. Aujourd'hui, nous sommes là au CIS avec Madame Amitar Fall, qui est la directrice Intelligence Magazine, qui est une femme exceptionnelle, qui a un vrai leadership et tout, et qui a parlé avec nous sur le thème de leadership féminin au Et je pense que toute personne qui a été là a quelque chose dans la tête et pourra nous expliquer maintenant c'est quoi le leadership féminin et la place de la femme au sein de notre société. waaw maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu seen teewaay di wax ni alliance des jeunes entrepreneurs élèves du Sénégal AJELS ay jeunes ay ndaw ñoo ko taxawal ngir lan ngir bokk li nga xam ne mooy jëmale. seen dëkk seen dëkk ci kanam ndax tey jii mënuñ toog di seetaan mënuñ toog bàyyi ñi nga xam ne nii ñoo ñu féete kaw rek di doxal loolu moo tax ñu jël suñu responsabilité jël suñuy engagement ni ñun dinañ participer ci li nga xam ne mooy doxal suñu dëkk commencé par aider ndaw ñi nga xam ne nii ñoo fi nekk jàppale leen ba ñu réussir seeni ay activités seeni projet mais aussi ñun ñu bokk ci ñi nga xam ne nii dañuy doxal c'est-à-dire que waruñ bàyyi yi kese ñuy jëmale réew mi ñun tamit dañu see bokk ñun citoyens yi ñun société civile donc li ñuy prôné mooy entrepreneuriat leadership ak citoyenneté démb ñu demoon Liberté 6 seeti prisonniers yi fa nekk waxtaan ak ñoom ne leen carrément ci société bi ngeen bokk prison jommul kenn waaye nag yàlla ñu ci yàlla musal ñoom ñi fa nekk yàlla na fa yàlla génnee ndax journée de la femme mënoo ko xalaat sans pour autant nga bañ a dem ci prisonniers yi loolu moo tax ñu demoon fa. di leen euh, da doon leen fa def benn jox ay et doon leen jàppale ndax tey jii loolu mooy suñu wareef mooy taxaw ci place boo xam ne nii fépp fu ñu dem rek dañ fay def social def fa leadership entrepreneuriat ak euh, li nga xam ne nii moo di citoyenneté